madame le ministre je vous woon occasion féliciter. le vous félicite des nouveaux collaborateurs notamment M. Ibrahim Gueye bi nga que ne mën nañ ko symbole d'administration Nous na sax président des administrateurs civils du Sénégal Nous sommes un homme compétent très structuré donc nous ngi koy ñu lay féliciter ci le fait que mu nekk ci sa wet dafay dalal suñu xel madame la ministre euh, sa nomination dafa am rupture bu mu def moo di jigéen ci Sénégal suñ leen doon nommé ci ay postes à vocation sociale ministère de la femme action sociale donc su fekkee ni da nga ñëw fii ñu toll nga xam ni sa département de bokk ci ministère yi ñu tuddee yi yore les questions nouvelles nga nek ci warna bar nga xam am nga challenge yu bari notamment au niveau de la transparence parce que ministère bi bo gissé exonération yu bari nga xam defal nañ ko société minière pose problème mais c'est parce que dafa normal lu rey ci yalla lañ ko sentu té mu am exonération yu bari li nga xam moy fonds d'appui de péréquation bi nga xam aux collectivités territoriales doxul té madame la ministre da ko wara def défi relever ko mu dox aider à la gestion euh, transparente euh, des des des ressources dina aider à la répartition équitable des ressources et en fin de compte avec comme finalité euh, la création de richesses au niveau des collectivités territoriales au niveau des familles la lutte contre la pauvreté donc parce que ressources nous nit ñi man wax naa keroog ministre de l'économie ni ko gëwuma RSE actuellement dañoo war a suñu PMI yi ak suñu PME yi dañu war a bokk ci exploitation ressources naturelles yi dañ ci war a bokk tiire ci bénéfice bi ñu ci war a tiire yëpp mais ñoo xam ne ñu ngi leen di exonéré li ñuy def kenn xamu ko ñu leen di soupçonné de corruption loolu yow de man séntu naa ne loolu mun na dañ ak yow parce que xam naa la xam naa la. pratiqué nañ la donc loolu mën na dañ ak yow ba pare man dama yoroon ministère nga jàppale ma donc ministère bi nga yor bu fekkee ne am naa xalaat dinaa la ci jàppale te xalaat bi mooy nga def challenge ni transparence dina ci am dans la gestion des ressources naturelles liñ ci war a def dinañ ko ci def li ci nit ñi war a am dinañ ko ci am parce que en réalité foncier jàmbur yi la ñuy jël ay tooli jàmbur la ñuy jël donc population yi war nañ sentir ni lii ñoom ñoo ko moom te loolu nag dafa participer à l'apaisement du climat social parce que amna lo xamni xam ne kenn ko nangu nit ñi duñu nangu ko jël seen tool nangu ko jël seen yëf nangu ko ñew accaparer leen li ngay exploité di yak seen atmosphère seen environnement doxul parce que man étude environnementale ba nga xaar ministre de l'environnement ce soir gëwum ñun phosphate yee ca ka doon def étude environnementale ba la phosphate ya far jël mu nekk ca phosphate yi di liggéey xam nga kooku moom mooy loolu donc étude environnementale man gëmuma ko à partir de ce moment euh, man maa ngi maa ngi am yaakaar ci ci yow di la ñaanal yàlla parce que nit ku baax nga koo xam ne euh, ñun bi ñuy liggéey fi domaine bi yi nekkoon mais dañ ñu ci daan jàppale di génne problème yi nga xam ni lii buñ ko jàddee dina déglu promouvoir femme yi donc su fekkee ni défi boobu da nga ko da ko war a relever ñëpp dañuy ànd ak yow ci nga ñu ko